mbokk yi jërë ngeen jëf euh, ci teelu bi euh, Senego euh, TV wala boog Senego point com ak yeneen plateforme yi seen invité du jour invité de la rédaction tey ñu ngi am madame Fatoumata Niang Ba moom mooy présidente Union pour le développement du Sénégal renouveau nekk allié Benno Bokk Yaakaar madame Ba ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi ñuy seetaan. waaw Pape Maguette Ba maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant. Hmm. di euh, nuyu tamit képp ku ñu seetaan euh, si biir Sénégal ak bitim réew. Hmm. di nuyu toute la rédaction de. Euh, Sénégo Sénégo. Hmm. ñu gis ne am na taxawaay bu am solo. au niveau de Grand Yoff lépp loo xamante ne moo soxal développement Grand Yoff rawatina tamit euh, lëngoo ko ak euh, parti bu APR bi nga xam moom moo jiite ci euh, tour bi nga xam moom mooy Benno Bokk Yaakaar madame Ba tey ci wàllub Grand Yoff bi nga nekk bu ñu xoolee y a des jeunes jeunesse baa ngi fa takk fa loolu Sénégal booy xool majorité bi c'est la jeunesse jeunes yi maanaam takku nañ fi loolu macha allah waaye mu mel ni kii rek dafa am benn gëstu goo xamante ni. OIT muy bànqaas bi nekk euh, bi ëmb àdduna bi yëpp ci wàllub euh, xëy nee nañu Sénégal moo nekk ñetteelu dëkk boo xamante ni chômage bi fa la gën a wulee ñaay nekk si ginnaaw Burkina Faso en tant que nga bokk ñi nga xam moom mooy Benno Bokk Yaakaar ban xalaat nga ci am. waaw oh, Pape Maguette loolu euh, dama si sawar a tontu. Mhm. parce que dégg naa comme ñu bëri rapport boobu ñuy wax rapport OIT la bu mhm. deux mille dix neuf ou deux mille vingt. Mhm. maintenant dafa am li nga xam ne man da si tey sama xel. parce que wóoruma ba léegi ni rapport boobu rapport OIT la hmm. parce que tamit na Sénégal hmm. euh, jàpp naa ni en majorité la population et les jeunes hmm. dañ naan plus de soixante à soixante cinq pour cent te le président Macky Sall mi nga xam ne tey mooy sunu njiitum réew dafa conscient si vraiment ni que jeunesse tey soo ko bëggee jàppale da ngay passer par son éducation ba pare mun naa ni teg si par sa formation moo tax bañ ko falee lu mu njëkk a teg dafa teg dafa dafa mettre en place des mécanismes yi nga xam ne dañuy mën a accompagner ces jeunes là pour ñu mën a construire seen avenir parce que foog naa ne jeunesse moom soo ko jàppalee moo construire avenir am loolu mooy koom-koomu réew mécanisme yooyu mun nañ citer ANPEJ mun nañ citer bu gën a récent mooy la DER mhm. mooy délégation entrepreneuriat rapide mhm. mu dugaloon ci trente milliards. ba gis na ci fan yi réew yokkaat nañ ci juste ba ñuy jublu élection yeneen i milliards. Mhm. pour mun naa ni gën a mhm. euh, euh, financer auto emploi et l' des jeunes. Mhm. donc tey mun naa xayma rek ci euh, deux mille dix neuf bi. emploi des jeunes. dem na entre cent soixante quinze à cent soixante dix neuf mille emplois yu nga xam ne créé nañ ko ci emploi. de 2012 ba 2017 sunu objectif c'était 500 000 emplois. Mhm. te 500 000 emplois yooyu dañ ko atteindre ba jéggi ko. Mhm. beneen bi nag mooy gis nga Pape Maguette Ba. Mhm. Euh, xam nga euh, tapé dans l'ombre ennemi tapé dans l'ombre des fois dafay am. parce que tey soo xoolee ces chiffres man damay wax de euh, man je réfute carrément. ces chiffres qui ont été déclarés dans ce rapport. Par pourquoi parce que. dafa méngoowul dafa reflété wul ak sunu réalité dëkk. Mhm. parce que ñoo bokk dëkk bi ñu nekk. te mhm. gis nañ fi création d'emploi yu fi teg ak mécanisme yi ma la cité léegi lañ fi teg pour loolu. Mhm. beneen bi tamit mooy tey toog nañu te experts yi xayma wax wax wax nañ si waxaat si Pape Maguette euh, soo xoolee auto emploi ak euh, emploi mun nañu 92 euh, pour cent yi xam nga si fan la nekk. si secteur informel. effectivement tey wóor na ne secteur informel mu ëpp si Sénégal donc moo tax may wax ni rek euh, mettre ma en doute loolu mais moo tax may wax ni rek chiffre yooyu ak euh, ñi ne ñoo def rapport yi balaa ñu si sori foog naa ñu dafa laaj yeneen di gëstu. kon parce que li ñu teg. Hmm. ak li xew si réew mi. Hmm. méngoowul bokk kon kon yéen euh, jo jotu leen jotu leen kii bi rapport boobu noonu tegoo ci sa bët. rapport bi teguma sa bët te dégg naa sax. Mm-hmm. ñuy wax benn filiale la beneen groupe parce que wax ji dafa coow li dafa. beneen filiale bu bokk ci OIT. bu bokkul ci OIT. Mm-hmm. te démb sax. Mm-hmm. si li ma jàpp ministre bi génn na. parce que man ka liir foog naa ne si seen site. ak seen yeneen i euh, naataango. tamit euh, li mu wax tamit leer na. loolu ñoom nekk ñu au courant de loolu te man nee naa ni man Fatoumata ñaamba mm. par rapport à ces chiffres man gëwuma ko mm-hmm. parce que li ñu joxe ci rapport boobu méngawul ak réalité yi ma la wax ni mm-hmm. mu nekk suñu biir réew mais mais danga wax a lu lu am solo ki nga xam moom mooy président ci wàllu euh, li nga xam moom mooy création d'emploi dimbali ndaw ñi génne na woon trente milliards de budget nga ni après yokkaat na ci as tuut trente milliards et quelques te création d' emploi dem na ba passé na de cent soixante quinze mille à soixante cent soixante dix neuf euh, emplois. année deux mille dix neuf. année deux pour la jeunesse mais dafay mel ni ki à à chaque fois. chaque fois ñuy dem di dem di dem dañuy gis ne toujours chômage bi dafay gën di yokk te tey boo ko waxee bon mën nañ am na ñoo xam mën nañ la gëm mais am na ñoo xam ñu laa gëm dañu naan ba tey chômage baa ngi fi ba tax na fan yi paas rek gis nga mbëkk mi Barça wala Barça dafa mel ni dafa mën dafa mel ni kii tout léegi maale en ce moment. mais dëgg la xam nga dañu nekk réew nga xam ne tey. Hmm. Euh, les avis diffèrent. waaw suñu waxee dafay am ñi ànd. Hmm. ak àndul. Hmm. ñun suñuy wax dañuy wax pour askan ñun waxuñu ciblé wuñu benn euh, amuñu cible daal. maanaam ne ñii la ñuy waxal. d'accord ñun dañuy wax toute la jeunesse sénégalaise. Mmh. dama ni la. Mhm. le président Macky Sall il est conscient mhm. que réew pour mu dox il faut que nga jéem a permettre à sa jeunesse ñu mën a ñoom seen bopp. Mhm. Euh, jéem a constituer seen avenir. et pour defar seen avenir moo tax moom mu mettre en place des mécanismes. mécanismes yooyu pour accompagner ces jeunes. si mécanismes yooyu man nangul nga ma yow sa bopp que. ANPEJ mi ngi dox liggéeyam nangul nga mën na DER mi ngi fii te partout dans le Sénégal. mais mais ANPEJ boobu balaa ñu koy dégg moo yàlla xama mën nañ ko dégg tey déggaat ko suba du ñu gis euh, pratiquement y des gens yoo xam ne nañu sentiruñu ANPEJ du côté de la jeunesse. d' accord xëy na ñi koy wax. Mhm. loolu tamit dama leen koy nangul. Mhm. mais man euh, ñëw ma fii pour yor kaddu ANPEJ. ANPEJ. Mhm. mais on parle on parle de la jeunesse su ma jiite woon ANPEJ. xëy na dinaa mën a teg. naka laay gën a mën a liggéey pour vulgariser ah cette euh, on va dire cette structure mhm. comme ni ko ki nekk direction de l'entrepreneuriat rapide di mhm. defee mhm. mais lu ma la mën a wax rek mooy ANPEJ mi ngi bay waaram DER mi ngi bay waaram am na ONFP am na yeneen ak yeneen yi nga xam ne mën nañ leen fi lim mais beneen bi rek mooy wax lu ma la mooy secteur informel emploi et auto emploi yi nga xam ne moom la ñu créé pour jeunesse bi mun nañu dafay constituer quatre vingt pour cent donc loolu rapport bi tey su ñëwee génne ay chiffres am ma bamtuwaat ko ces chiffres ne reflètent pas la réalité bi nga xam ni moo nekk suñu biir réew mi Sénégal mais am na benn beneen réalité boo xam ne mooy reflété wu muy mbëkk mi euh, Barça wala Barsaq temps yi dafa gën a kii de dafa gën a yokku de waaw euh, mbëkk mi ñun dañoo juddu sa fekk ko fi dëgg la am déet ah man kay man kay nu ma wax dëgg la am déet. mais loolu du tey. <laughs> Eh. parce que si régime Diouf yaa ngi ko doon dégg. si régime Abdoulaye Wade dégg nga ko. nga déggaat ko si air. Euh, président Macky Sall mhm. déglu nga ko. Mhm. donc lu ma la mën a wax rek mooy loolu choix la parce que tey lépp li nga xam ne war nañ ko. Mhm. li nga xam ne ñu ngi koy jàmbaarloo ko ak jeunesse yi parce que tey si régime Macky Sall euh, président Macky Sall ngay dégg vraiment tey xale yi gëm seen bopp. xale yi gëm lan mooy. Euh, entrepreneuriat parce que tey xale boo gis mu ngi créer benn GIE am wala benn société di def élevage ah xale yi ñu ngi def euh, euh, nu ñu koy waxee sax di di di di bay xale yi tey ñu ngi am ay créativité yi nga xam ne du du liggéey da ngay am salaire rek da ngay am mun naa ne diplôme rek sax dem liggéey si bureau ba am salaire hmm, déedéet. Hmm. xale yi gëm nañu. même avec des diplômes professionnels ah même ak euh, seeni seeni xarañte seeni xam-xam mun nañ dem créer seeni bopp seeni seeni seeni euh, entreprise mën hmm. a demal seen bopp hmm. du ma leen ne nag mbëkk mi amul hmm. am na mais tamit da ngay gis man gis naa fi ma dëkk euh, sama maam fi mu dëkk Pikine benn at lii ay cinq ans ci ginnaaw la kooku dafa am boutique am baax sax am soxnaam soxnaam dafa wanoon lor toll ak si juróom-ñeenti weer mais ba muy dem moom moo nekk soutien de famille la woon moo yoroon këram. Mhm. maanaam il avait une bonne situation. Ouais. mais dafa dem. Mhm. mais kooku est-ce que dafa da nga ni kooku amul lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu yor wala li nga xam ne mi ngi koy ki nga xam ne mi ngi séddale këram du joxe dépense kooku am na lu mu lu mu suturoo. Mhm. c'est juste que mythe bi la. mitu Europe mitu tukki mitu voyager loolu tamit des fois da si bokk. vraiment te tamit. am ñi nga xam ne dañ koy commercialiser. Hmm. te tamit nag vraiment euh, pour man ñooñu la ñu gën a war a gën a mën a saytu pour teg ay daan yu métti si ñi nga xam ne ñooy est-ce que jotul tey a ñoo xam ne ñoom ñooy nekk ci liggéey boobu mais ma jox la exemple barki démb Ndiaye dama toog sama benn rakk xam naa dina may déglu hmm. mu ñëw ne ma man de am na benn cas benn euh, bateau bu ma xam ne day dem le vin hmm. euh, xaw lan sàngam ma ne ko fan lay demee mun ne ma bërëb sàngam ma ne ko ah mu ne ma waaw man dama si bëggoon bokk ma wax ko li ma koy wax ba mu bàyyi teg si suuf mu ne li nga wax dëgg la ma ne ko yaa ngi suturlu di def sa liggéey fii am li nga la ma tax nga bëgg a dem mu ne ah mais dégg naa fee moo neex ma ko wax nga laa bëgg nekk su ma ko waxoon dama koy dem man sama bopp dem boole ji dénoncer ko parce que ñooñu seen bopp ñoom ñooy sànq suñu doom yi ñoom ñooy sànq suñu rak yi mhm. man daal li ma la bëgg wax si gàttal mooy mhm. ce rapport là mhm. man personnellement mënuma ko gëm parce que tamit nag mënuma ko nangu mënuma ko mënuma si d'accord hmm. parce que rapport boobu chiffre bi ñu joxee reflété wul réalité réew mi comme ni ma la ko waxee. d'accord sama sama bu ñu jugee ci ñaari point yooyu ñu dem ci beneen boo xamante ni jamono ji mooy coow moom de dafa ñëw rek indi coow ci réew mi Aliou euh, Dembourou Sow nekk euh, député bokk ci seen euh, mbootaay di Benno Bokk Yaakaar wokk APR dégg nga lu mu wax ci li nga xam moom mooy naka la ñu war a xeexee ñi nanguwul troisième mandat président de la République. loolu sa interprétation no dama ne dégg nga ni mu ko waxee. adé ah, déggoo ko. Ah, mais déglu naa ko mm. voilà léegi ma préciser ah nee na nañu jël ngànnaay jëflanteeg ñi nga xamante ni nanguwuñu troisième mandat président de la république. xam nga wax wala wax ko. xam nga wax nee na ku nekkul wala wala firlo wala wala wala fuuta doo doo mën a xam kàllaama. xam nga wax. Mm. ak dégg-dégg ba. te ku mm. nekk. Mm-hmm. soo waxee. Mm-hmm. comme si mën a doon. mun mm. nga am na nga koy déggee. na nga koy interpréter parce que yow mun nga ko interpréter noonu. Mm-hmm. man ma mm-hmm. am nu ma ko jàngatee. Mm-hmm. keneen ak keneen am nu mu ko jàngatee. man je connais la personne de Alioune Dembourou Sow. c'est quelqu'un que je respecte. ku baax la. ku am yar la. te tamit xamuñu ko si violence. ba may wax ni nag euh, Pape Maguette Ba. Mm. le président Macky Sall dafa jël réew mi dans la sérénité et dans la paix. ba ay moroomam. doon dem mhm. chaque jour di assiéger la place de l'obélisque di fa xeex di rayante moom mu ngi woon dans la brousse dans les champs dem di xool jafe-jafe askan bi xool naka la koy saafaree. Mhm. moo tax ba mu ñëwee mu am vision bu ambitieuse bi muy le plan Sénégal émergent teg ko. Mhm. parce que dafa ku nekk dem la seeti la dafa dem dans le Sénégal des profondeurs. ma waxaat la ne la ba ñi di xeexi place de l'Obélisque le président Macky Sall dafa demoon dem di jàkkantook sénégalais xool Sénégal de profondeur xool leen metti tey mu ñëw tëngu ko ci benn plan mhm. kon président Macky Sall du ànd kenn ki nga xam ne day yee fitna mhm. du nekk ak kenn ki nga xam ne tamit nag day jóg naan dafay mën a tas Sénégal déedéet moom li mu wax fitna la non déglu ma rek déedéet xam nga da nga ne donc c'est entourage yu waaw xam nga danga ne ku si nekk noo koy déggee ak noo koy jàngatee noo koy interprété mais wax ji dafa jub wax ji daa jub. niñ ko bindee daa jub est-ce que kàddu yooyu war na mën a jóg buy wax mu wax wa kàddu gu leer. Pa Maguette Ba ma wax la dara dama ni la. Mhm. sunu président dafa jël réew mi dans la sérénité. et dans la paix. mu koy gérer ba léegi dans la sérénité dans la paix chaque jour. Mhm. ngeen dégg. Mhm. leaderu opposition wala ngeen dégg activiste wala kenn wax ay kàddu yu yu yu ñaaw jëmale ko si moom wala jëmale ko sax si famille wala ci askanam. chaque jour mm-hmm. te mu déggu leen ko benn yoon mu sévir si yooyu parce que mm-hmm. moom nitu jàmm la moo tax may na képp ku muy àndal jàmm rek lay mën a doxee si réew mi le cas du député mm-hmm. lu ma si mën a wax mooy am na fu mu waxtaanee mu doon euh, benn contexte la entre ay naataango wala mun nañu entre ay am di jàmb bañ ko waxtaanee génn na ba ñu génnee nag dafa doon li nga xam ne neexut dégg si nopp neexut a dégg comme neexut a déggu si nopp boobu parce que tamit nag ñun dañ ñu am nu ñu mooñaalee. Mm-hmm. mun naa wax démocratie sénégalaise. Mm-hmm. tey Sénégal euh, dëgg la ñun fitna wala violence verbale xëy na récemment rek nga ko xam nañ koy doog a xam. Mm-hmm. mais xamuñu ko woon avant. tey ma jàpp ne Alioune Demba Rousseau lu député. ba muy wax waxul pour laaj ñoo ne leen jóg leen. demi ji loolu kenn jéemu ko ko sax waxloo pour mu wax ko parce que xam naa ni c'est quelqu'un de très responsable maintenant il a été maladroit et cette maladresse ba mu amee lu gouvernement génn na ñaawlu ko suñuy moroom génn nañu ñaawlu ko mais tamit foofu la ñu mën a yem ñaawlu nañ ko rafetul si dégg-dégg mais xëy na c'est hors contexte ni ñu fi ñu génnee wax ci mais nga xam ni wax nga ne wax nga ne rafetul pour dégg mais moom dafa ne bu doon waxaat da koy waxaat. non moom dafa génn dans l'observateur. wax ko fi. Mhm. ba mu génnee. Mhm. das si wax lu bëri. mais xam ngeen yéen yéen <laughs> politicien nit day wax lu bari xam nga la ngeen di génne yéen yéen journaliste nit si mm. waxee lu mm. mm. da ngeen di titre li leen intéressé rek pour maanaam muy ngeen gën a jaay seen seen seen seen i journaux wala seen waaye loolu day fekk mu am de ba mu si génnee nag wax na si ne moom carrément ba muy wax jublu si woon loolu wax na ko si biir wax parce que ñun ñëpp liir nañu journal bi nee na jublu si woon loolu ki ne jublu si woon loolu koy mooy tuub na loolu bien vrai que moom tamit du mus a jóg bay wax na de inciter à la violence wala dara parce que mm. xamee wuñu ko ko mm. te ñun ki ñu jiital mu ak mu jiite tout le Sénégal muy le président Macky Sall ñun si paye lañ ko xamee ak si yar ak si dal mm. donc vraiment loolu moom euh, c'est un c'est un ba débat pour moi. c'est d'accord euh, nooy jàngatee beneen débat bi nga xamante ni xëy na est-ce que doomu wax c'est un faux débat audio Mansour fay Ousmane Sonko fii wax nañu fii génne nañu ay ojo langue politique bi mu mel ni kii dangay ngay waaru daal kenn dootul mën a comprendre weerante lu ne am ci. waaw euh, mun nañ ni. Mhm. loolu am na. te ñun mhm. ñëpp euh, seetlu nañ ko fekkee nañ ko. Mhm. mais dafa am lenn rek li nga xam ne man man lu ma si euh, wax. tey lii dafa prouver nettement que Ousmane Sonko vraiment dafa il a montré ses ba pare moom tey lan la ñu wan askan Sénégal que. le mensonge maanaam sos maanaam euh, wax li nga xam ne tamit mooy euh, lu méngoowul ak dëgg loolu xëy na moom loolu lay incarné parce que suñu toogee le ministre su Faye moo def benn euh, am na lu mu doon wax ba wax ni moom sax moom mi ngi nekk di wax mais am na ay temps ñëwoon na laaj man dafa bëgg a gis le président mais Ousmane Sonko c'est un citoyen comme tout Sénégalais. Mhm. su ko neexee gis le président Macky Sall mais ruus na sax wala jombal na boppam sax wax ni wala accepter la la réalité ne moom jéem na gis le président Macky Sall mais que ma gis ko avant muy créer parti wala ba mu nekkee ci syndicalisme syndicalisme wala ba mu nekkee impôt mais loolu ban solo la amal waa réew mi mais mun nga ni rek loolu am na. Mhm. ñu jàll ci leneen. mais ba le ministre Mansour Faye waxee. mais ñun ñëpp dégg nañu dafa génn nga baal ma daf ko saaga. nu mu ko saaga. saaga loolu man man sama yar gis nga Ousmane Sonko. Mm-hmm. ak ñi muy àndal ñoom la yàlla may ñuy génn chaque jour di saaga ay kilifa di teg seen ndodd yi ay wax yi ñaaw mais man yarewu ñu ma noonu li mu wax dégg nga ko dégg naa du ma man par respect. Mm-hmm. du ma si delluwaat ba mu ko waxee. ñu ne déetawaay mu toogaat le surlendemain. Mm-hmm. génn ne. man dey loolu ba may wax dama doon testé audio naa euh, jour sàngam euh, le CEO Sall ba ma ko audiowee dama doon testé dama ko doon seetlu mais ban Sénégal lañ nekk dañ nekk Sénégal bu nga xam dañ nekk si jeu mais lii am na wax na dem na gis pour pour pour ñaan pour gis président Macky Sall période boobu gisu ko woon mais jarul woon mu si yee na di si wax lépp lu mu si wax la tey jii nii fii la toog ne moom mosul defoon tay bu njaay mais son jeune Euh, sont de des de, des cadres ou, ou autres. Mm-hmm. le le monsieur Bassirou Diomaye Bassirou mm-hmm. génn na ba mu génnee lu mu wax dafa ni carrément su si c'était à refaire daf koy defaat. parce que ba muy dem dafa demoon en tant que tel. mais loolu tamit tey point de divergence yooyu di am seen biir pour man mënoon na bën a ñàkk. mais weerante audio yi nag. parce que est-ce que mënul woon ñàkk. gis nga weerante audio. defante ci place publique bi. loolu entre des leaders yoo xam ne. xoolal dama ñu loolu mënoon na ñàkk aspirer pour pour diriger ñu. mais loolu xam nga kan moo si jublu tout le temps. Hmm. mani la. Hmm. wax mënoon na. am gis nga wax su guddee rek ñaar ñi ko sekk ko guddal te wax ji ba mu guddee Ousmane Sonko moo ko guddal hmm. man pour gàttal rek pour bañ a sore sax si cas hmm. Ousmane Sonko xam nga laa la bëgg wax gis nga le Sonko hmm. man Ousmane Sonko pour man c'est un épiphénomène waaw dafa nekk nit bi nga xam ne moom li ko ñor lu ma ko bëgg wax rek mooy senegal kenn du ko yor si fitna Sénégal kenn du ko yor si saaga Sénégal kenn du ko yor si teesante te gis nga leader dafa war a am taxawaay le président Macky Sall nag du égalam te du mus a nekk égalam parce que tamit nag gis nga dem nga élection jël troisième nga créer sa parti saa si jël troisième jurisprudence jurisprudence boobu mun naa la si génneel ñaar. Hmm. tu sais que en juillet. 1998. Hmm. Hmm. xam nga y avait eu cette scission entre le feu Djibo Leyti Ka. ak Abdou Diouf. ba scission boobu amee. le Euh, Djiboka génn ur URD e, ba mu génnee en 98 dafa amoon élection législative yaa ngi koy fàttaliku mais Djiboka eh, dafa nekkoon en lice avec le parti social et le parti démocratique sénégalais mm-hmm. mais dafa il est arrivé troisième dem assemblée am fa groupe parlementaire foog naa de quatre de quatorze députés mm-hmm. ñu ñëwaat si 2000 mm-hmm. mais tey le président Niass dafa créé parti am foog naa en 99 mais dafa dem élection présidentielle en 2000 mais moom après Wade moom moo moom moo tegu si mais y des élections yi nga xam ne amaat na fi demaat na mais est que ñi nekkoon deuxième ñoo nekk ba léegi mais da ngay gis ni parce que da ngay gis ni ñooñu wàccaat nañu bu baax a baax parce que xam nga lan la. Hmm. l'être humain si boppam moom moo bëgg du nouveau moo bëgg lu bees moo bëgg lu neuf surtout sénégalais surtout le sénégalais moo bëgg lu bees hmm. mais c'est pas parce que tey da nga créer sa parti tey hmm. dem élection ñëw derrière Idriss le monsieur Idrissa Seck nga foog ni yow yaa moom Sénégal alors que ñi la fi jiitu def nañu lu ëpp li nga def te tey tamit gis nañ leen si yeneen i position donc lii rek jàngat la hmm. pour revenir di la waxaat ni man Ousmane Sonko. Hmm. c' est pas un débat c' est un non débat. Hmm. donc nañ ko bàyyi wax ji rek ñun ñuy liggéey. d' accord ñu jeexalee ak euh, parti bi wala boog coalition bi Benno Bokk Yaakaar euh, pare ngeen pour àndaat dem ci local yi nga xam ni wóor naa am wóorul euh, am na ñoo xam tam nee nañu les alliés am na ñoo xamante ni yi daf leen naqal di tooyal seen di feesal seen i poche tooyal seen ceeb mais am na ñoo xamante moom. di leen jël rek fàtte leen oublier leen euh, loolu yow bokk nga ci wala am na ñoo xam ne ñu ngi ceem déet. Euh, xam nga. Mhm. tey dañoo dem si coalition. waaw coalition boo dem di nga si am lu la neex. Mhm. di nga si am lu la naqari. Mhm. ñun dañu ànd ak kenn muy le président Macky Sall. te ñu xam ni nit bu loyal la parce que loyauté moo tax tey ñi mu àndal ba léegi mi ngi ak ñoom. déet am na ñu génn de. ñi mu àndal ba léegi mi ngi ak ñoom mooy. tey 2012 ba léegi. Hmm. ñi nga xam ne ñoom la muy le parti euh, du président Niass. Hmm. le parti socialiste. Ah. Euh, mooy PIT. Hmm. ñeen ak ñeneen toujours ah jàpp naa ni tey ku nekk war ma bi amoon si yow am na ko si yow ba ñii nga xam ne ñu ngi ak suñu ànd ak moom bien vrai que dañuy ànd ak dañuy jànkonteel des fois ay jafe-jafe avec ces hommes. ñu parce que tey dama ni la su doon le président Macky Sall président Macky Sall rek kenn du am jafe-jafe dans la coalition. Mm-hmm. kenn laa lay wax. Mm-hmm. parce que nit la boo jox ak kuy allié am. Mm-hmm. maintenant nag le président ne peut pas tout faire. fekkee tey les infos les bonnes infos duñ ko koy yéegee. loolooy indi des fois réeroo. loolu indi des fois frustration. loolooy indi des fa déception. man damay wax rek nee daal ñu ko sës ñooy xool. ñu leen neex ñu yéegal information bi. man damay wax rek. yëgul tinul. dëgg la damay wax rek man. ñi nga xam ne ñoom lay àndal ñi nga xam ne tey ñoom ñoo yor politique am mm-hmm. nañu gën a yaatal mm-hmm. yaatal mooy rendre service le président Macky Sall mm-hmm. nit mun na toog fee di mere le président fekk xam na ni sax moom sax yëgul sa li xew parce que dama lay waxaat leen carrément c'est un homme très loyal te loyauté boobu moo tax ñun tey ñu am conviction gën a ànd ak moom di ko accompagner dans ses actions politiques di ko accompagner son ni mu bëggee changer le le ni mu di ko accompagner si transformation profonde yi nga xam ne moom la bëggal réew mi. Mm. donc dama ni la tey képp ku toog si coalition bi jàpp si. Mm. le président moo tax nga toog. Mm. parce que xëy na am na lu la wan. wala tey am na nu mu la jàppee lu tax yow nga mën a toog bien malgré tes frustrations ak say déceptions. donc foo dem nag coalition boo dem di nga fa fekk jafe-jafe. mais lu may ñaax rek. tout un chacun mooy nañu jàpp ngir kenn ku ñoom en commun muy le président Macky Sall parce que Sénégal moo ñu ñor aussi mm-hmm. yaatal bi moom ay nitam lañ koy wax mm-hmm. dañ leen di gën a ñaax rek pour ñu yaatal parce que tamit la coalition mooy force su euh, président Macky Sall mm-hmm. jërëjëf euh, madame Fatoumata Niang Ba présidente Union pour le développement du Sénégal Renouveau bànqaasam mu nekk Grand Yoff fa la fekk baax muy suñu diwaan ñoo ko bokk ñun Grand Yoff la ñu bokk mën nañ ko ndamoo mm. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak. Euh, askan d'accord Pa Maguette loolu li wax euh, Grand Yoff la ñu bokk. Mm. Grand Yoff moom. Euh, foofu la ñu moo ñu moo ñu jàngal lépp. Mm. donc euh, di euh, commune bi nga xam ne tamit. Mm. lépp lu ñu am bëgg nañ ko ko jox. Mm. parce que lépp lu ñu si mën tamit bëgg nañ ko fa def. Euh, di ñaan yàlla mottali yéene yi rek. di la gërëm di la sant di gërëm bu baax tey ñi ngi seetaan di leen di wax ni lépp lu ñu fi wax rek dañ si jublu rek. pour yeete. pour xamal te tamit indi ay leeral tey di profito de cette occasion. pour gën a féliciter le président Macky par rapport à la gestion de cette pandémie parce que métti woon na lool mm. gisoon ngeen cas ñu ngi doon egg ay cent quatre-vingts mm. ñu ngi doon egg ay deux cents nañu depuis un bon moment ñu ngi si ay vingt-cinq ñu ngi si mm. ay dix-sept ñu ngi si ay dix-huit coow li jógoon na mais dañoo am un président bi nga xam ne tey ba coow li méttee lool lool lool lool dafa déglu ses experts ba mu déglee ses experts si la jël des euh, mun naa ñi décision fortes de mesures fortes des mesures courageuses jeux des décisions politique mun nañ ko wax bien vrai que ñenn ñi nanguñu ko mais tey résultat final bi. Mm. mooy li am. Mm. y a une baisse au moment où partout dans le monde dafa am une hausse. vraiment euh, de de de de de cette épidémie tey ñun fi Sénégal dañuy ñaan yàlla mu gën a continuer baisse bi. Mm. ñu dem ba nga xam ne benn virus euh, dootul doxantoo ci biir Sénégal. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di la remercier yow di remercier aussi. toute l'équipe de merci beaucoup Ablaye si technique bi jaa ngeen jëf mbokk yi.